tey nag dañu doon euh, xayma affaire yi càmbar donc ci wàllu sécurité euh, police ak gendarmerie yëpp ak même sapeur pompier di protection civile donc waxtaan nañ ci defe naa donc lu ñu tënkoon yëpp incha allah loolu yëpp dina sotti donc euh, muy barrières yi muy éléments yi donc ci kër kilifa itam yooyu yëpp dinañ jël matuwaay yëpp incha allah noonu tam ci wàllu wérgu yaram ak. donc euh, lii di pompe bi di hygiène donc boo xam ne ñoom sax euh, dafa mel ni seen liggéey moom euh, noppi na. Sénélec aussi muy branchement provisoire yi groupe électrogène bi à moins trois jours jusqu'à plus trois jours hors délestage aussi mise hors délestage yooyu yëpp donc incha allah dinañ kii Sonatel dëgg la donc mu ngi mission waaye mesures yi mu waxoon. donc euh, li ñu diggoon yëpp incha allah dina ko def euh, noonu tam ci eaux et forêt commerce tam ñoom déjà commencé nañu liggéey bi tey ndax euh, comme koor gi dafay tàmbali incha allah suba donc ñoom déjà tey il faut ñoom ñu nekk ci terrain bi moo tax moom sax mënul ñëw donc ñu def opération coup de poing bala produit yooyu di dugg ci kër yi donc mu ngi noonu wàllu ndox tam muy juróom citerne yi ak fukki bâche yi donc hydraulique and ci ak waa Maawu Rahmati donc ñoom tam dinañu jël donc.